benn yoon boo xam ne daan ñu koy programmer lu jëm ci wàllum césarienne yéenekaay gi di laas xëy di ñu xibaar naan ñu askanu Sénégal am na ñenn si ñoom ñoo xam ne bi ñu yëgee maanaam anam bi nga xam ne si la su soxna faatu ci hôpital bu Louga dañoo mer ba maara détaillé ñenn ci Sénégal daan nañuy sàkko ci état bu Sénégal maanaam ñu jël ay matukaay ci ñi nga xam ne ñooy sages-femmes yi daal di jeexal pagaay bi nga xam ne moo ci ama yéenekaay gi ne na am na ñenn ci askanu Sénégal nee na ñu sages-femmes yi boo demee ci hôpitaux yi maanaam au lieu que ñu jël la en charge léeg-léeg ñenn su ñooma maanaam si seen téléphone téléphone yi la ñuy nekk amuñu benn respect ci doomu aadama amuñu benn yërmande ci doomu aadama yërekaay gi di réew mi quotidien am na ay jigéen ñoo xam ne daan nañu yëkkati seen kàddu ñaawlu bu baax a li nga xam ne moo xew ci hôpital bu Louga ñenn ci jigéen ñi nag ñoom ci journal bi nee nañu comportement bi nga xam ne yenn sages-femmes yi amee nañu ko loolee ci boppam maanaam moo war a jeex am na si ñenn nag ñoo xam ne dañoo soxor ba maara de tali am na ñenn si ñoom ñoo xam ne waxin bu ñaaw la ñuy wax li su doy waar lu ne la ñuy def mi nag waxtaan naa yéenekaay gi di Les li nga xam ne moo dox diggante Cheikh Amar ak Samuel Sarr jamono ji pënd bi ko Cheikh Amar porte plainte yóbbu ko ca kanamu yoon ci brigade de recherche ndax moom Cheikh Amar nee na Samuel Sarr 2014 dafa ñëw si mooma na ko Cheikh Amar dafa soxla ab xaalis dafa bëgg nga daal di koy abalu toll si ñaari milliards Cheikh moom tamit daal am yërmande ci Abdoulaye Wade jël ñaari milliards ki nga xam ne mooy Samuel Sarr waaye nag maître Abdoulaye Wade gisul ñaari milliards yooyee yéene kaay gi ne na ki nga xam ne nag mooy Samuel Sarr ngir na justifier maanaam ñaari milliards yooyee ab list la génne liste boo xam ne ay kilifa dina ñoo si nekk ak ay homme politique ak ay journaliste wax ne ñooñee la ko Abdoulaye Wade joxloo woon xaalis ba yéene kaay gi ne na bi jamono ji ma ngi ci deuxième cabinet juge Mamadou Seck information judiciaire lañ si ubbi journal bi ne na Samuel Sarr ne na ñu ko bul génn réew mi maanaam contrôle judiciaire yéene kaay gi de la sa xëy duñu xibaar naan ñu armée bu Sénégal ca àllub Casamance ba bëri na fa ay tool yoo xam rebelle yi ñoo ko bayoon yàmbaa lañ sa bayoon waaye nag tool yooyu yëpp maanaam armée bi yàq na ko tool yi nga xam ne moom la rebelle yi bayoon doon sa bay yàmbaa armée bi yàq na lépp ba pare tamit teg loxo yàmbaa ju bare bare bare te nag ñi nga xam ne ñooy rebelle yi seen activité principale moo nekkoon trafic lu jëm ci wàllum yàmbaa nee ma wàllum drogue bi yéen kaay gi di réew mi ko di cee xëy duñu xibaar naan ñu lu jëm ci wàllum faux billets yi jamono ji nag nga xam ne ñooy waa douane ñoom nag def nañu liggéey bu am solo ndax nag douane teg càmbar yi maanaam toll na ci benn milliard si sunu koppar yu fekk ñetti téeméer ci ay millions yéen a kaay gi ni na faux billets yooyu nag ñoo ngi ko jàppee diggante Dakar Thiès ak Louga yéen a kaay gi di Sud Quotidien xëy duñu xibaar naan ñu nag xaalis bi nga xam ne mooy bàyyeekoo ci sunu pétrole bi ak sunu gaz bi jamono ji nag état bi ñoo ngi xool ana nan la ñu koy séddalee yéen a kaay gi ne na Abdoulaye Daouda Diallo mi ñu dénk wàllu finance ni ki démb daan nay dalal ñi nga xam ne ñooy député yi gi di enquête xëy duñu xibaar naan lu jëm ci xaalis bi bàyyi ko ci pétrole bi ak gaz bi état bi jamono ji ma ngi waaj li nga xam ne mooy tong-tong bi yéen kaay gi de la quotidien xëy ñu xibaar naan ñu état bu la ngir nag njëg yi bañ a yokk tax na état bi génne lu toll ci cinq cent cinquante sept milliards Abdoulaye Daouda Diallo moo ko xam ne démb ci assemblée nationale yéen kaay gi di réew mi quotidien xëy ñu xibaar mbir mu doy waar a doy moo xam ne ni ki démb daan nañu koy àtte sa tribunalum Dakar dafa am benn waay boo xam ne da doon bëggante ak xale bu jigéen xale bu jigéen bu am fukki at ak juróom waaye nag xale bu jigéen boobee ay waajuram dañ koo bëggoon a jël may ko keneen xale bu jigéen ba dem ci copain boobee daal di koy jox boppam ñoom ñaara ñu daal di siim seen mari ngaañ yi ba nag wannu lor daal di say ajo yéene kaay gi ne xale bu góor boobee nga xam ne moo ëmbal xale jigéen bi moom nag daat nañu koy atte ndax nee nañu ko dangaa yegg ci mineur ba mu wannu lor tëj nañ ko lu toll si juróom benn weeri kaso mbir mi nag Dakar la xewee ci gox bii di Wakaam yéene kaay gi de la Quotidien xëy diñu xibaar naan ñu ñi nga xam ne nag ñooy liggéeyee ca mairie bu Kaolack jamono ji dañoo mer ba maara détaali liggéeykat yi nekk ca mairie mairie bu Kaolack ndax ñoom nee nañu ba léegi kenn fayu ñàkk fay gi ñu leen ñàkk fay seeni salaire loolee moo leen metti moo tax nag ni ki démb amal nañu ab sitina yéen kaay gi di Walf Fadjri xëy dañu xibaar naan ñu Macky Sall élection locale yi nga xam ne moom la ñu génn la nga xam ne moo ko si daloon bëggatul mu dal ko Macky Sall remonte daal la bëgg a def ci élection législative yi nga xam ne moom la ñu dëg ma la yéen kaay gi di sunu làmb xëy dañu xibaar ne moo a dox diggante Sa Thiès ak Reug Reug combat boobee Sa Thiès ne na ko yow